ba léegi erreur boo xam ne ñu bari dañ dañ koy def tout le temps di ko def donc moo tax ñuy def fàttali yi xam ne lii bokkul ci diine bokkul ci julli doo ko gis ci benn téere fiq boo xam dañuy jàngale ne lii booy julli na ko def mooy lan mooy nit ñi bu ñu sëlmale ba pare ne asalaamaaleykum rahmatullah asalaamaaleykum la naan nii ñenn ñi nekk foofu di bind walla naan nii gis nga ñenn ñi nekk foofu walla jël seen loxo di am lu kii lii yëpp amul du ci diine lii bul ko def ndax la fait que koy def lii au lieu ngay am tiyaaba sax bàkkaar nga ciy am donc nañ ko moytu moo xam signé moom moo xam bind moo xam def nii am ay mbir yooyu wax ñi ñenn ñi def nii ñenn ñi loolu lépp lii dafa xaraam julli du ko def ci biir julli ndax bokkul ci julli yonent bi sallallahu alayhi wa defu ko te jàngalu ko saxaaba yi radiallahu anhum te ñooñu ñoom ñooy nitu aljanna yi